di nuyu ñi fi teew ñëpp commencé ko ci le gouverneur de la région de Diourbel di nuyu également adjoint le préfet sortant maa ngi koy nuyu également di nuyu sous-préfet yi nuyu ñi fi nekk député euh, membre conseil économique social environnemental HCCT euh, euh, di nuyu également ñi nga xam ay autorités coutumières lañ ak religieuses particulièrement la khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mais it sëriñ Momadou Lo Gaabu nga xamante ni Serigne Moustapha di di di taawam mu ngi fi ñëw pour feddali ma seet kullari di nuyu it ñi fi teew ñëpp sama mbokk bopp yi jógee sama dëkk Mbodiène nga xamante ni eh, li olof naan luy jig njaaga te yow yaay jàpp parce que dëkk bu may tiitaroo la fépp fu ma dem maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ci teewaay bi ci suba ba léegi yéen ak fii fi eh, mais xañ na sama jëmm ji xeebu ji moo tax ngeen déplacé wu ma leen di xamal ni aw ma seen fay eh, di nuyu it waa Mbàkke maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax a baax eh, monsieur le gouverneur. dama wax léegi donc ni dafa am loo xamante ni du lu yomb nekk autorité administrative lu jafe la jafe xañ na ci mission yi waaye ci lu jëm ci sacrifice bi nga xam war nga ko am parce que day laaj loo xamante ni tout le temps foo toll am na ci loo xamante ni fa nga nekkal état dafa taxawaay boo xamante day laaj nga sacrifice lu bari ci sa bopp ba sax daanaka sañ njaboot ci loolu maa ngi gërëm sama soxna man nag benn laa am benn bu fees ñeent la fi ne nii pour le moment la pour le moment maa ngi gërëm it xëy na bala ñoo jóge Mbàkke ñu ànd ak keneen loolu mën na koy. di gërëm ñépp ñi nga xamante ni sama jëmm ji tax na ci teew eh, wax naa sama waa dëkk léegi waaye dinaa beral loxo sama ñaari waajur ndaxte am na ci loo xamante ni. Euh, damay jékki-jékki tëdd ba guddi sama xel di dem ci ay jafe-jafe yoo xamante ni doon nañ ko dund mu leer ni ma lu mu mën di doon rek sama jëmm ji du dara mais ñoom la maa ngi leen di gërëm bu baax a baax sama yaay ak sama sama papa le plus souvent dañ naan xañ na doom bu góor yaayam lay gën a jege yenantu bi it sallallahu alayhi wa yaakaar naa joxe na ci xisa koo xam dañ doon wax mu ni ko booy séddale nga yor benn mu kan la mu ni ko kan laa koy jox mu ni ko jox ko sa yaay mu laajaat ko mu ni ko jox ko sa yaay mu laajaat ko mu ni ko jox ko sa ba muy ñetti yoon ñeenteel bi mu doog di ko jox ko sa papa sama yaay maa ngi koy gërëm waaye nag sama waajuru góor yi yaakaar naa daanaka ñu bëri dañ maa booleeg moom muy sama xarit maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax waajur yi lépp luñ am ñoom la lépp luñ am it jàpp naa dañ ko war a delloo ci ñoom fépp fu ma taxaw walla lépp lu mën di doon rek maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di gërëm it sama mbokk yëpp yi fi teew sama mbokk bopp yu jógee wax naa léegi Mbodiène waaye Thiès am na ñu fa jóge sama dëkku maam xëy babal nga xamante ni mu ngi cee ba am na ñu fa jógee teew si maa ngi leen di gërëm baax a baax aw ma seen fay bu loolu weesoo it damay wax xëy na ñi nga xamante ñoom ñooy population Mbàkke ñoom ñu tax ñu jël ma indi ma fii mission nag dina yar dina dina diis dinay dina oyofit sa dépend nañ koy na nga xamante ni noonu lañ noonu lañ koy doxale waaye dama jàpp ni fii kuy jàmbaar amu fi ku yàlla jàppale moo fi am te damay ñaan yàlla xañ na moom mi nga xamante ni jàppale nañu ba ñu commencé ba léegi mu continuer jàppaleen ci lii bañ ne ma préfet département Mbacké ñu bëri léeg-léeg ñu waxtaane Mbacké diis na Mbacké diis na man am naa yàqin ni bu yàlla jàppale lépp lu ñu fi mënul def amul te loolu laa gëm dama gëm ni que tant ñu ngi am benn souffle de vie lépp loo xamante ni rek war nañ nit war na ko man a def man nañ ko man a def te ci loolu laa gëm loolu laa gëm monsieur le gouverneur wax na fi léegi benn kilifa boo xamante ni jaar naa ci ay loxom muy euh, secrétaire général ministère de l' intérieur Alioune Aïdara nga xam ne nekkoon na fii gouverneur yaakaar naa biñ ma nommé woo naa ko ñu waxtaan ci lu yàgg mu ni ma xañ na am na ci loo xamante ni ci conseil des ministres nga ko déggee comme ñëpp waaye buñ la tànnee am na lu tax. loolu nag ñoom ñoo xam man xaw ma ko man xaw ma lu tax ñu tànn may li ma fi xaw ma ko mais dama gëm nii loolu xañ nañu def su ma ci yàlla jàppale sama kilifa jàppale ma ci notamment le gouverneur war naa ko mën a réussir comme ni fii ñëpp réussir wala lu réussir lu ëpp loolu euh, Amadou maa ngi lay ñaanal yàlla fa nga jëm mu defal la fa loo xamante ni ndam loo am kenn mësu ko fa am yàlla dimbali dimbali la fa jàppale la ci waxtaan sax yaakaar naa am na ci lu bëri loo xam doon nañ ci ñëw man ne la man bi may ñëw Ziguinchor di def stage en 2015 booba dafa fekk ñu nommé la préfet département Ranérou nga war a dem Ranérou fekk ñun ñuy ñëw stage kon sa rakk lañu dañ continuer suñu amee luñ ci soxla bu soobee yàlla di la laaj ba keroog xam donc en tout cas fan la ñuy teg suñu tànk comme yaa ñu fi jiitu lu ci bëri dinañ ci dégg dañ ci waxtaan ak yow su fekkee en tout cas soxla nañu conseil ñu jël ko bu yàlla. ñun nag suñuy mission dañu nekk daanaka ci benn côté autorité administrative dañu am ay kilifa muy ñuy wax supérieur hiérarchie kilifa gi jiitu ci da ci région bi gouverneur mii la xañ na am ñeneen ñoo xam topp nañ ca ba ca kaw euh, ñu war am également loo xamante moom taxawaay bu ñu war a am seen diggante ak ñoom maanaam muy loyauté loyauté maanaam jafe na ma tekki ko ci wolof waaye daal mooy ñu ñu ñu ñu topp seen ndigal lépp loo xamante ni war nañ ko seen diggante ak ñoom lu ñuy def ñu ni leen def nañ nangam wala dinañ def nangam lii ak lii fi lañ ko teg waaye it am na ci leneen loo xamante ni moom laay wax donc suñuy mission it ay texte dañ ko régir maanaam dafa am ay décret ay naa commencé cax ci kaw ay constitution décret loi et cetera ñoo xam dañ naan fii ngeen mën a commencé fii ngeen di yem waaye ci kaw loolu mooy wax ñëpp ni Euh, sama xel dafa mas a nekk ci lépp loo xam maa koy def ma teg ko ci dëgg tey bu soobee yàlla fii loolu laa fas yéene nekk ba bis bu yàlla dogalee xañ na mission yooyu ñu jeexal damay ñaan yàlla lépp loo xamante ni nar naa ko jël comme décision te teguma ko ci dëgg rek yàlla bu ma yàlla may kàttan ma def loolu lépp lu ñu am en tout li ñu am ci ambition mooy teg lépp lu ñuy def teg ko ci dëgg loolu nag buñ ko ànd ak leen dul population yi fi nekk wax naa ko fi léegi acteur bu mu man di doon muy acteur économique muy acteur ñi nga xamante ci côté social lañ nekk ci euh, wàllu collectivité territoriale état ni mu tëdd dafa am ñaari bànqaas donc li ñuy wax surtout au niveau déconcentré ci bu ñëwee ci gox yeeg goxaat yi donc dañu am lu ñuy wax autorité déconcentrée muy préfet gouverneur sous préfet euh, moo am également autorité décentralisée muy président conseil départemental maire yi ñooñu nag dafa nekk ñaari maanaam mamel li ñuy wax ñaari ween dañuy ànd nag jenn jëmm ji moo leen moo leen moo leen moom moo leen meññ mais dañu war a ànd bokk ci li liggéey bu soobee yàlla nañ ci ànd ak ñoom bokk ci également force de défense et de sécurité yi ñëpp ñoo xam ne en tout cas war nañu liggéey ànd ak ñoom dinañ ko def bu soobee yàlla loolu moo nekk suñu yéene amaana nag dina dem ba foo xamante ni xañ na ak lu ma di doon di nga diisoog nit ñi déggante ak ñoom laaj seen xalaat ba bu demee xañ na loo xamante ni yow ci sa décision bopp la nga jël décision ba nga war a jël waaye it loolu également mu am foo xam fa lay tënku ubbeeku ci ak sa hiérarchie xool la loo xam am nga yoon may na la ko ci nga def ko loo xam yoon mayu ko ci également nga bañ ko cee def bu soobee yàlla loolu moo nekk suñu yéene te loolu dinañ ci ànd ak képp koo xamante ni donc yaa ci population bi xeebuñu kenn yàlla bu ñu yàlla def sax ci ñun lu ñuy xeebe kenn parce que ñun dañuy jàpp ni ñun ñooy jëm jëm yu xeebu ji et que ñun donc li ñu koy kii ñun dañu ñëw pour servir population yi maanaam seen ndaw lañu ñun dañ fi ñëw di leen jaamu di dox ci seen soxla donc loolu moom mooy suñu raison d'être bis bu ñu ko noppee def rek xam leen nit yoon nga ñu war a nekk nekku ci saa bu ñu xëyee suba ba ngoon xam leen ni ci loolu lañ bëgg a nekk su ngeen suñuy buntu ubbi nañ ko ku koo xam bëgg nañoo gis bu soobee yàlla wala bëgg na waxtaan ak ñun dinañ ko Eh, ubbil suñu bunt waxtaan ak moom béglu ko waaye it am na ci loo am xañ na léeg-léeg it ñu nekk ci soxlay askan bi nekk ci ay xat-xat yoo xamante ni léeg-léeg loolu mën na xaw a jafe waaye dañoo bëgg rek ñëpp comprendre ñu waaye bis bu ñu commencé liggéey bu soobee yàlla xañ na dinañ xam donc lan lañ bëgg ak lan lañ bëgg en tout cas population bi lan lañ bëgg doxale ak ñoom loolu moom mooy suñu yéene monsieur gouverneur maa ngi lay remercier bu baax a baax yaakaar naa ne bañ ma nommé ba léegi chaque fois que ma soxla dara donc euh, chaque fois yombalal nga ma ko maa ngi fàttaliku sax bi ma jëkkee bi ma la jëkkee woo da ni ma ah seen Xaadim de ak maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu dajee ca Mbàkke yaakaar naa ni boobu ànd dina war a dina war a dekk ànd bu ànd bu neex ànd bu bu bu fii nag xañ na li ci particularité bi mooy euh, sëñ Xaadim xañ na mooy ndongol maam Cheikh Ibrahima Fall loolu moo nekk bu soobee yàlla bëgg nañu daal eh, dañ doon jàng ay ndaw yu xañ na am na parcours boo am wax nga ko fi waaye ñun lu ñu xeeb la ci sa autorité daal bëgg nañu nga gën ñoo jàppale ñu gën a yokk suñu xam-xam nga bëgg gën ñoo également jàppale bu baax a baax nga xam ni ndaw luy jàng si rek moo fi ñëw suñu demee ba juum it nga jàppale ñu ci couvrir ñu dimbali ñu orienté ñu jooyante ñu nii nii la war a doxale loolu mooy suñu yéene humblement dañu ñëw fii pour gën a renforcer mu ngi leen di bu baax a baax sama collègue bii di sama camarade de promo Abouba ah, mooy directeur général cadre de li et de l'hygiène publique ci ministère de l'urbanisme de de l'hygiène publique ci suba ba léegi mu ngi fii maa ngi koy remercier bu baax a baax loolu kóllëre ak euh, euh, loo xamante ni en tout cas ànd bu rafet moo ko man abu maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la jaajëfal jërë ngeen jëf